waaw man soxna Mbayang maa ngi leen di nuyu bu baax ah, ah, daara ji daara moderne la waaye ah, du daara moderne ndax bi ma génnee dem du baay li ma leen wax mooy yóbbu leen ma ci daara yi fi nekk biñ ma yóbboo ci daara yi fa nekk li ma fa gis mooy daara yu mucc ayib yoo xam ni xale yi fa nekk ñi ngi eh, dund ci dund goo xam ni bi ma ko xoolee dama doon bëgg a jooy par rapport ak suñu daara yi Euh, daara yi coono yi jànkonteel ñu dem ba mën a génnee ñoo xam ni ña nga xamee ni ñi ngi tëdd ci ay climatiseur di ay xale ci daara ñooñe mënuñu leen kon ñun gàcc nga laa ma sunu sëriñ si nga xam ne ñoo fi nekk di jàngale bu ñu amoon moyen yoo xamee ni mel na ne moyen tuuti rek waxuma climatiseur sax waaye ventilateur rek suñ ko amoon yaakaar naa suñu xale yi seen jàng dana gën a mucc ayib eh, seen njàng mi buñ ma ci jàppale woon jàppale yeneen sëriñ yi ci Sénégal gépp seen jàngale dana mucc ayib man damaa yokk yore école sama borom eh, daar alxuraan sama borom kër yore école français sama borom kër chaque année bu école di tijji loolu dama ko naqarlu ba taay dañuy ñëw gouverneur ba day ñëw ñoom wër école am école français yëpp dañ koy wër jardin sama borom kër dañ fay dem te moom sama jardin ak jardin am dañoo wute maa ko ëppale dongo fopp moom da koy ñaxtu ni man li tax nga ëppale ma dongo man ko yàllaa ëpp doole waaye ñun nan la ñu mën a nekke fii gouverneur yi di wëri daara yi di di wëri école yi daara yi ñu seppi ko teg ko ne loolu mooy li ma gën a naqarlu nga xamee ni jàppale gi nga xamee ni dañ koo war a am jàppale fédération bi amuñu boobu gu doole nit ñi ñoo war a jël ñoo war a vol def jël seen matuwaay bopp jàppale daara yi dëgg-dëgg jàppale li ñu jàppale du jàppale xale yi tëdduñu ci lu lu baax ndax ay kër yu xat lañu nekk man maa ngi nekk ci ñeenti daara yoo xamee ni dama ko luyee ci ci Louga ndax bañ benn peeru xat-xataay bi nga xamee ni moom la xale yi dund ci daara ji xale yi yëpp fi ñu dañuy dund te taxul ñu dund ci dund gu baax de kon ñooñu dañ leen a war a dimbali dëgg-dëgg dimbali dimbaliwuñ leen nag man mënumaa nekk Louga di jàngale bu yàgg ba tey ëpp ñaar fukki at eh, amul benn autorité bu xam sama place fi man fi mu nekk lool lool lool dafa dafa doy waar te tiim man tim sénégalais la sénégalais yi laay liggéeyal bu fekkente ni ñi ngi liggéeyal sénégalais yi sénégalais yi ci boppam ñoo ñu war a jox ak ñëw topp ñu seet suñu ndongo yi ndax suñu ndongo yi la ñu nekk dafa metti néeg yi ñuy tëdd day xat xeeñ xunn dañoo war a nag di ñëw di jàppale leen ci néeg yi bu leen gouvernement yi mënut a jàppale ak autorités yi personnel personnalité yi nga xam ne bon volonté la mel na Cheikh Abdoulaye Dia ñooñu dañoo war a def ay volonté seen bopp ñëw di dimbali daara yi ndax doomu daara yi nag ci dëkk bi la ñu bokk te sonn nañ sonn koo xam ne nag ku ko waxul nag da nga ko joxoñ waaw kay salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh qumu takriman qumu ta'ziman qumu ihtiraman